mu buy bu daanu ci dëkk bi muy Alaaji Falilu Njaay doon suñu xarit di suñu mbokk di suñu nawle mais nag di agent de développement bu kenn werantewul taxawaayam ci suuf si pour ñëpp mën a am suuf si ci agriculture bi mais aussi ci dëkk bi kon yàlla na ko yàlla yéen yàlla na ko seen Tuubaa gàttal ko ci yéegal ko ci àjjana yi gën a kawe di waa Ngaye nag ndax rendez-vous bi ni ma la ko loo xam ne mënta ñàkk ndax jëloon nga rendez-vous ba yëgle ko waaw te àddina nag la kon day ñëw xëy na noonu ko doon bëgg a ala daw mais du ni du ni mel xëy na waaye nag na waxtaan wi leer nit ñi ci dégg-dégg bi leer la sant yow ndax couleur urbaine day émission boo xam ni dafa yitteel xale yi mais dafa émission jamono hmm. waaw kon bu ngeen ci invité ñu ñëw mooy que fonk nam ni àddina doxee mais aussi fonk nam tam ndaw yi leen yitteel hmm. loolu lay sant di sant nag ñi ma nekk dool dala euh, petit maañ dem ci sa soirée bi ñoo ngi lay félicité lay ñaanal mu bañ a nekk bu mujj hmm. di nuyu sama conseiller municipal bi wax dal tam Pape Diagne di nuyu ñaangaay yépp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di yàlla def jàmm ci dëkk bi may ñu julli gi ñu génn mu bañ a nekk suñu mujjëlu julli ñu feebar yàlla may leen ñu wér ñu tali ñëpp mu may leen seeni problème euh, faj comme ni ko waxee tey borom dëkk bi lañ dalal muy monsieur le euh, léegi xam naa damay bàyyi euh, sama mbokk Talla Thiam mu introduire ko mu mu mu voilà jërëjëf euh, Baro jërëjëf euh, Pape Diagne ak euh, Petit Math mi nga xam ne mi fi teew rek daal di nga xam ne moom la monsieur le maire def ci tiis yi nga xam ne dal na ci suñu kaw ñun ñëpp ñu bokk ko di ko métti muy wàccu liggéey si fàllu di ñaanal suñu borom di ñaanal ci suñu borom mu liggéey rek bool ci tamit dañ ñaanatul firdawsi jëm sang-sang Seydina Mohamed ak ci sa saba te di ko jàll ay mbokkam ak itu tuddal bi yëpp ndax nag nit la koo xamante ni dafa amoon solo lool ci société bi rawatina ci lu jëm ci développement kon ni ko la mel waaye loolu muy dam na ndax nag koo xamante ni jéego bu mu sëkk ci luy jëmel réew mi ak ab goxam kanam la ci wàllu xoom kooku bu wàccee rek day daal di tiis wante nag yàlla na ko borom teeroo ca jànnatul firdaw si waaw monsieur le maire tey nga ñëw ci couleur urbaine wax nga ko léegi ndax émission la boo xam wala amoon nga ci dégg-dégg ak lan nga retenir ci colonie urbaine ñëw ci kanamu monsieur waaw jërëjëf Talla euh, couleur urbaine euh, du gan ci man ndax euh, amoon na sama rajo kaddu mm-hmm. bi nga xam ne itam dañuy place bi nekkoon dañu ko luye woon eh, jox ko borom di tabax nag suñu siège bopp eh, parce que dañoo bëgg a taxaw beneen taxawaay boo xam ni. rajo bi day ànd ak télévision eh, ñoo ngi ci ñoo ngi ciy liggéey eh, yàkkamte wuñ ci mais am nañu place bi ñoo ngi ciy liggéey donc couleur urbaine nekkoon na fa xam nañ ko mais xam nañ ni am na audience parce que xale yi bëgg nañ ko mais couleur urbaine tam léegi lu xew ci jamono rek day ànd ak ñuy wax urbanité mm. mooy lépp loo xam ni mënut a ànd ak euh, développement urbain ànd ak développement urbain di leen xamal aussi jafe-jafe yi di leen xamal lan mën ay solution di waxtaan ak ñoom di ubbeeku di xam seen i ak di xool di leen ci et Moustapha aussi na koo xam ni pionnier la quand parce que boo fi njëkk indi euh, émission couleur bu mu njëkkee ñëw wax ma ko tam dit « ko qu'est-ce que tu veux faire et mais ba tey ji euh, ci ñi ëpp ëpp audimat la ci kon euh, plaisir le pour ñu ñëw parce que lu mën a fexe ñu mën a waxtaan ak suñu ndaw ku ñuy urbain wax développement mais qui a de plus ñu invité dans le cadre culturel Pas de politique culturelle culturel par rapport non seulement au niveau de la commune mais également des institution il y a comme rajo yi Sabos Ngaye FM peut être yeneen euh, kii qui xamante ne ay structure médiatique lay doon. waaw xam nga ñun dañoo un avantage pour parce que les léeg dama naan ça, xëy na dañoo gëmul suñu bopp am na xale bu ma ni keroog mais yow bu ñu waxee nga ni ngaay sama village ba pare di sama ville ma leen di wax ni euh, ñi gën a mag ci àddina boo demee Côte d'Ivoire dëkk ba fa am urbanité bi gën a spectaculaire mooy Yamoussoukro bu fekkoo ñu ba muy dee boo waxee mun sama village man baykat laa parce que loolu damay bëgg xale yi di bañ a fàtte cosaan parce que soo tëbee tëb rek neen ville bi gën a moderne ba dara bu spectaculaire bu donc moo tax caada ak aada dafa baax te fii aussi daf ci am xam ni daf ñu tënk parce que fii mooy goxu Kocc Barma moo daan wax nit nit nit ci nit ngay jóge nit a lay téye ci àddina nit lay dellu loo rëy rëy nit a ngay jëlaat dugalante ci biir kon caada aada ak fonk nit dafa am maanaam mais soo fonk ñett yooyu mënoo fonk li xam ne mooy développement culturel ci contexte urbain donc loolu moo tax couleur urbaine bi nekk loo xam ni dafa am maanaam mais nag urbanité bi euh, développement bi muy am mu mel ni ngaay nga xam ni boo xoolee fi ñu jógee ngaay nekkoon dëkk su tuuti dans les années soixante peut-être matul woon junni juróomi junni nit nga dem leen ba nekk fanweeri junni ñuy dem ba ngaay nekk télé national jaar fii ñuy dem ngaay am retard comme ni ko rajo bi di waxee nekkoon pee ba jàll jël daj ñu commencé di làmbaliwaat ba mu di doxaat nag ba ku nekk bëgg ko war a accompagner ak li nga xam ne mooy suñu doole te suñu doole yooyu dafa am maanaam parce que nit ñi dama bëgg ñuy am dégg-dégg parce que dégg-dégg du li nga bëgg rek ngay wax ba li nga ko bëgg a dégg nga koy dégg tey dafa am xam nga lu ma wax rek foog ñu laal ci parce que problème boo gis ci àdduna koomu koy kër gi bu amee jàmm comme nit ñi am na lu lu mën bu xuloo amee mooy xat na donc comme mooy la boo gisee Japon ak Corée ak Chine Chine moo ëpp nit ci àddina mais bu doon doon ñi bu nu gënee bari yi dund ni muy doxee du nu am développement Chine wala le contraire Inde tegu ci bi ñu demee ñoom itam wane ni nit bari ci mën nga ba mu nekk loo xam ne atout ñu def euh, dividende démographique ñu ne léegi Japon Japon xam nga toll na fu mu mais Corée ba 1980 Corée Corée du Sud tey koo dégg mu ne la ma nga Corée dégg nañu Corée Corée 1980 moo ko Sénégal ñoo tolloo te xool leen Sénégal 1980 de bokkut ak Sénégal gi nga xam ne point yeeg tëli yee ba ngi ñu tolloo benn benn développement en 50 ans. Corée nekk une grande puissance mm. te Corée amul dara ci suufam ñun am nañu or am nañu fer am nañu zircon am nañu phosphate am nañu pétrole am nañu gaz am nañu basalte am nañu lépp léegi. Mm. am na am na am na benn moo jot a seetlu mooy comme bu ñu ñëwee au niveau de au niveau instant yi de plus en plus euh, muy ressource minière ak yeneen ak yeneen yu bëri mi ngi feeñ bi. gis nañ côté Jogo wala yeneen ak yeneen léegi euh, yooyu doon est-ce que comme ñun euh, waa Kajoor yooyu noonu ñun mënuñu ñun mënuñu see euh, profité de telle sorte est-ce que amul tam yenn politique yi nga xam ni war nañ koo def de telle sorte que comme sunu sunu sunu sunu ressources yooyu noonu ñu ñu bénéficié wu est-ce que comme ñi nga xam ne ñu ngi si ñi nga xam ne ñoo nekk si bopp nguur est-ce que ñu ngi def politique boobu noonu ñu gën see ñu gën see profité en même temps tam sunu jeunes yi gën فوف لا ديم سي زادي مو تخ موي كوريك باسكو كوري امول بن ريسورس خم نغا يو يالو واخ امنا لي امنا لي نيوم امو ني دار نيك غران بيسانس كوري امول بن بترول بو نيك تي سوفو مي رافيني ييب تي ادنا كونسانتري و تي بن ريو فوف نيك نيو خم نون نيار فوك اك نيتي رافينري يو خم بترول بي افريك لي كوي جيل ديسكو ديكو جاي جابون اك شيك دونك خم افير بي بوليتيك لا اك خارنتي اك بوك لغي يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم yaa ngi jéem a xëcc pour am développement foofu dafa laaj politique évidemment d' abord dafa am ñaari mbir yoo war a xool c' est à dire nit ki bu fekkee dafay ñëw ci ses ressources dafa am taxawaay boo xam ne ak contrat yoo xam ne moom nga war a négocier moom ba gis ci sa njëriñ mais contrat yi pays africains yi parce que léeg-léeg nag ngeen may wax booy waxal Sénégal ak pays africains yi ñoom ñëpp ñoo bokk ay atte c' est que Afrique dafa jëlagul euh, développement ci ay loxoom donc politique bi des na parce que politique. du question rek euh, li ñu bëgg la lay imposé yow léeg-léeg nga ñàkk dara ngir li nga bëgg parce que bëgg nga ko donc ñun li ñu war a def mooy contrat yi contrat yoo xam ne amal na njariñ réew mi amal njariñ askan wi yi am ay suivi ñu xool ci exploitation bi te Kajoor tey aujourd'hui ñun am nañ lu bari am nañu port de pêche bon deuxième port de pêche du Sénégal bu dul nekk